salaamaaleykum internetu euh, Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci euh, di Gaga mi nga xamante ni nag ci ab euh, déclaration bu mu doon def def si daal di réciter benn saar ba tax na sax dina ñu wax tamit ci xale bi nga xamante ni daal di woon nañ koy faat ci parcelle Parcelles Assainies ca jamonoy manifestation yi di Cheikh Wade dëkk foofee ca Cambérène dinañu wax tamit ci sanction. bi nga xamante ne nii Macky Sall daal dina koy teg ci kaw personnel de santé bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon foofee ca hôpital Magatte loo bu Linguère dinañu wax tamit ci réaction bi nga xamante ni nii ay Diop Fall moom daal dina koy amee gannaaw ay révélation yoo xamante ni nii daal dina koy def ci noonu tamit dina ñu wax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 salaamaaleykum ma internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi comme ni ñu leen ko waxee woon ca njëlbeen bi rek dañ koy daal euh, doore ak chanteuse américaine bi di euh, Lady Gaga moom euh, Lady Gaga nag dafa daal di jekk saay rek bëgg dugg ci li nga xamante ni moom moo di yoonu lislaam ci noonee sax ñu gis benn déclaration boo xamante ni nii moom Lady Gaga mu ngi ko doon def ci noonee sax mu ci tari benn saar. alxuraan ba tax na sax dañ leen daal di rek euh, benn extrait bu ndaw ci saar bi nga xam ni moom Lady Gaga doon na ko euh, tari أعوذ بالله من والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطر bu ñu jógee ci loolu nag dañuy daal di wax ci Wally Ballago Seck moom nag gannaaw barki démb moo nekkoon anniversaire am mu nekk nag anniversaire boo xamante ni nii dafa daal di tombeek rek génnub àdduna papam ci noonee nag moom Wally Ballago Seck daal dina def benn publication ci page Facebook am moom Wally daal dina yëkkati ay kàddu rek di sant yàlla bu baax a baax ndax nag euh, at yi nga xamante ni yàlla daal dina ko koy euh, may waaye tamit nag mu ngi rendre hommage ki nga xamante ni moom moo di euh, papam papam bi nga xamante ni sax moom mu ko moom Wally mu ko daal di duppee moom mooy papa yi ñëpp ci noonee sax Wally Seck daal dina wax rek ni que mu ngi euh, gërëm di euh, dellu di euh, sant tamit sa askan wi yëpp ndax nag taxaw bi nga xamante ni daan nañ ko koy taxaw gannaaw nakar bi nga xamante ni yàlla daal di woon nañ leen koy teg waaye tamit nag ci nakar boobe Wally Seck daal di na xam la rek ni que boo ko jëlee bokk ak ñëpp rek dafay daal di yomb lool ngir mu jàll ci noonee sax gannaaw ba mu ko bokkee ak ñëpp te ñëpp tamit dañ ko daal di bokk ak moom mu daal di remercier li nga xamante ne nii. moo di askan wi remercier euh, famille wam euh, ci noonee sax moom waale tamit daal dina xam ne rek euh, ni que kii di Papa Thione mu ngi koy ñaanal bu baax waaye tamit nekk na nit koo xamante ne ni kenn dootu ko fàtte. bu ñu ah, jógee ci loolu dañuy daal di wax ci ah, jëye bi nga xamante ni nii daal di woon xew foofe ca hôpital Magatte Lô bu Linguère ba ay liir jot ci ñàkk seen bakkan ci noonee sax ah, bëri na ñoo xamante ni nii daal di nañu joxoñ baaraamu tuuma lii di personnel de santé bi nekkoon foofee waaye tamit ministère de la santé tamit daal nañ koy joxoñ baaraamu tuuma. ci noonee sax moom euh, Macky Sall daal dina jël ay euh, sanctions yu euh, métti jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon foofee waaye tamit nag kii di Macky Sall moom daal dina changer li nga xamante ni moom moo di directeur général bi nekkoon foofee. gannaaw directeur boobee ba mu euh, démissionné ak personnel de garde bi nga xamante ni ni ñoom ñu ngi foofu ñu ngi woon euh, foofee ci noonee sax moom Macky Sall euh, ki nga xamante ni nii moom la tabb bees rek moom moo di docteur bu Cissé mi nga xamante ni ni moom nag euh, chirurgien la waaye tamit nekk dentiste en même temps nekk économiste euh, ci li nga xamante ni moom moo ji euh, wàllum wér-gu-yaram ci noone nag ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci hôpital boobee nga xamante ni mu ngi doon wuyoo ci turu Abdou Sarr moom nag euh, gannaaw ba nga xamante ni dañ leen naroon euh, sanction dañ leen naroon euh, suspendre rek moom laata décision boobu di nekk en vigueur rek moom dafa daal di démissionner ak personnel de santé bi nga xamante ni ni ñoom ñooñee ñoo fa nekkoon waaye tamit nag ci li nga xamante ni moom moo ñel personnel de santé boobee am na ci euh, ñaari infirmier yoo xamante ni ñoom euh, dañ leen daal di affecté euh, ci beneen hôpital ba tey ci li nga xamante ni moom moo ñel mbir moomee nag kii kii di ADF Aïssatou Diop Fall moom nag ci émission bi nga xamante ni daan nañ ko koy dalal foofee ca Sénégal 7 moom nag daal dina addu ci mbir mi di wax rek ni ko loolee nekk na lu nga xamante ni nii dafa daal di daw yaram lool dafa daal di métti en tant que yaay looy waxee ci ki nga xamante ni moo di ci femme yi ñàkk seen doom la bokk bokk témoignage bi nga xamante ni daan na koy def ay Diop Fall daal dina xam la rek ni que moom daal dina dundu li ni mel ndax nag moom moomee Aïssatou Diop Fall nekkoon na koo xamante ne nii dafa daal di amoon ay fausse couche yu bëri yoo xamante ne nii dafa daal di euh, teglonte ba yàlla daal di koy may euh, benn bant ci noonee euh, loolu la Aïssatou Diop Fall daal di xamle sukkandiku ci noonu ngir wax rek ni que. moom daal dina xam bu baax a baax ndaw soosu lu muy yëkk ci noonu sax moom Aïssatou Diop Fall daal dina ci doole rek ni que acte bi nga xamante ni daal dina fay xew moom sax genre assassinat la koy daal di duppee du ko sax wax ni que néglisance la wala li ni ndax nag am na yenn yoo xamante ni. moom mënul euh, concevoir loole di xew ci hôpital ndax nag ki nga xamante ni moom moo leen doon surveiller waru woon tëj xale yooyee ci biir chambre boobee wax mu naan day dem euh, sangu ji ak li te amul kenn koo xamante ni nii day xool xale yi te noonu sax daan na xamlewaat rek ni que euh, personnel de santé boobee dañ leen war dañ loo war a yokk li nga xamante ni moom moo di nit ñi garder xale yi waxuma muy am kenn kese muy garde yooyu le liir bu ñu euh, noppee ci loolu nag dañuy daal di wax ci euh, lu ñeel euh, Cheikh wadd xale bi nga xamante ni moom moo daal di ñàkkoon bakkanam gannaaw manifestation yu ñu doon amal ci ay bés yu ñu génn ci noonee nag xale boobee ñu daal di koy faat par balle reyel ba tax na sax loolee nekkoon la nga xamante ni dafa daal di dawoon yaram lool. ba tax na euh, moom euh, xale boobee nga xamante ni nii mu ngi euh, dëkk foofee ca Cambérène ñu reyee woon ko fii ci parcelle Parcelles Assainies ci manifestation yu métti yooyee famille xale boobee nag ñoom dañoo daal di wax rek ni que dañuy daal di porter plainte ba tax na sax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di lay jëkkoo mi nga xamante ni moom moo daal di joxe boobule xibaar mooy famille boobee. ñoom dañoo daal di euh, décider ni dañuy daal di euh, porter plainte ba tax na sax euh, daal nañu jël ab avocat waaye tamit nag euh, ci li nga xamante ni nii moom moo di euh, euh, Cheikh Wade moom nag li ñu ci bëgg rek moom moo di ñu daal di amal li nga xamante ni moom moo di dossier bu leer naa ñi ci mbir moomee ndax nag bëgg nañ li nga xamante ni nii moom moo di ki rey seen doom ñu daal di koy teg ay daan yoo xamante ni nii moom la ñu war ñu teg ko koo xamante ni nii daal na fàtt bakkan bu ñu jógee ci loolu nag dañuy daal di wax euh, ci euh, Mame góor Diazaka euh, moom nag dañ ko daal di dalaloon démb foofee ca Walfadjri ci émission boobee di salon d'honneur moom nag daal di woon bokk plateau bi ak chroniqueur bi di Pape Makhtar Diallo ci noonee nag Pape Makhtar ñu xamee ko ci ay question yoo xamante ne nii. dafa daal di direct lool ci noonu sax moom euh, Pape Makhtar daal di wax kii di Mame Gor Diazaka rek euh, ci li nga xamante ni moom moo ñeel euh, fekk ji bu mu fekk ji li président Macky sàll ci noonu sax daal di na koy xamra rek ni ko xanaa liñ ko jox moom moo daal di duul waaye nag moom Mame Gor Diazaka daal di gis boppam ci loolu ndax nag daal di na xamle rek ni que. kii di la président Macky Sall moom mosu ko jox euh, miskit euh, ci noonee sax euh, Pape Makhtar Diallo daal di koy wax rek ni que kàddu yi nga xamante ni moom da ko doon yëkkati di wax rek ni ndaw yi dañoo bëgg lu yomb dañuy daal di bëgg toog di tëdd di nelaw ak lekk ci noonee sax moom Pape Makhtar daal dina koy xamal rek ni que ndaw yoo xamante ni ñoom amuñu xëy ñoom naka lañu ñu mënee. daal di euh, góorgóorlu wala takkale ci euh, dara ci noonu sax maam góor euh, gannaaw débat bi nga xamante ne nii daal di woon buy coow lool maam góor daal dina koy xamal rek ni que moom moomee dafa daal di nekk nit koo xamante ni dafa daal di am éducation ba tax na sax moom moomee bu fekkee ni dal dina dem jàppale ci président Macky Sall rek c'est parce que programme bi nga xamante ne nii daal dina ko koy jox rek daal dina koy. actualité yi nag dañ koy euh, jeexalee ak euh, Aziz Ndiaye mi nga xamante ni nii nag euh, moom moomee dafa daal di fësal ak vidéo moom ak ñaari doomam gannaaw ba nga xamante ni nii nag ñoom dañuy daal di dem umra 2021 moom Aziz Ndiaye moomee ba tax na sax dañ leen daal di dëgtal extrait bu ndaw ci li nga xamante ni moo di boobule vidéo internetu Feeling Dakar cant ak ngërëm ñeen na leen fi leen yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar